ne ko Mbaye Kouthia bul la fiin mais euh, dem am na sax ñu dem ba wax bind que ni ne ko euh, Viviane daf na ko génneel sama soirée ngone loolu noo koy noo koy noo koy jàngate ku mel ni Viviane génn Mbaye Kouthia soirée am waaw Mbaye moom ku ko xam-xam ne ruubekat la ndax Viviane moom wax dëgg yàlla bu nemee ci soirée boo xam ne ñëpp ñoo fa nekk yëkkati seen téléphone du filmer euh, mën naa ne du mbay Kouthia kese moo fa nekkoon ci influenceur mhm. am na ñeneen ñi nga xam ne tey jami dañoo ñëwoon baal si yëkkati seen télé téléphone di filmer mais kii di Viviane bu demee ba interdit mbay Kouthia ne ko bu ma filme kon dama yaakaar ne am na lu tax <laughs> te Viviane tamit wax dëgg yàlla loolu warul sax rafetul sax mu naan Mbaye Kouthia bul ma filmer wala waroo ma filmer wala dara di nangu li nga xam ne moom mooy téléphone mhm. mais Mbaye Kouthia tamit est-ce buy yëkkati téléphone am di filmer bul xam ak yan parole la ciy boole Mbaye Kouthia bu doon day jël ay image am kase ñëw filmer comme ñëpp su paree moonte teg ci sitam ñu ne waaw mais Mbaye Kouthia tamit na ma yàlla baal nag mbay sama xarit la waaye bu mu yëkkatee téléphone teg ko bul xam yan kàddu lay yëkkati di ko ci teg ndax wax dëgg yàlla influenceur la boo xam ne dafa ñëw moom tamit di def liggéeyam ko ñëpp ko Viviane bu permettre ñeneen ñi ñu ñëw tamit di ko filmer en tant que influenceur ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo ñëw ci biir soirée bi di filmer war na bàyyi ki nga xam ne mooy Mbaye Kouthia mu def liggéeyam mais bu jëlee Mbaye Kouthia humilier ko ne ko bul ma filmer wala bul bul ma def nangam dafay xaw a dafay xaw a nekk lu doy waar nekk na lu yéeme mais Mbaye Kouthia moom it ay affaire am dadul yam Mbaye moom suñu nit la ndax moom Feeling Dakar la bokk waaye Mbaye tamit ay affaire am moo du réglé xam nga ne bu jëlee téléphone ba naan day filmer Viviane bu doon dafa yem ci filmer kase dem dugal dama yaakaar ne Viviane du ko ne bu ma filmer waaye mbay mbay daal mi ngi noonu la mbayee mbay rek. d'accord xam naa da boole yu ci bokkul. Djibori euh, Viviane est que war na dàq Mbaye Mbaye Kouthia ba coow li ne kur ci réseaux sociaux yi ba moom Mbaye Kouthia mu génn sax. di wax xama xama xama bu demee si Viviane di ko filmer yaa ngi dégg. Mhm. Euh, euh, Mbaye Kouthia aussi dama gis mu ne Ndeye Gueye Eh, eh, si si soirée ah, Viviane bi nekk fépp yàllaa ko mën yaa ngi dégg xam nga loolu oh, tay jii Ndeye Gueye mën tooñ bu mënee dem ci Waly Seck dem ci Viviane dem ci ku nekk xay na bu leen wano bu leen wanoon leneen lu bu leen wanoon leneen lu leen yàqal du ñu nangu Ndeye Gueye di leen di di di wër ci kenn mhm. waxal mhm. defe naa wanu leen ko mhm. léegi nag lii liggéeyu mbay yaa ngi dégg mbay problème bi mooy man de man wax naa ko ne mbay continuité bi mooy ngay wax ci def-def nga bàyyi vie privée du noonu. Mhm. waaw. Mhm. et puis Viviane aussi su fekkee ne dafa gis mbay mu nangu portable mbay mu ñëwaan naan ko damaa juum foofu juum munu fa am. Mhm. du dëgg parce que tey munoo nangu portable nit te xamoo portable ki nga nangu. am na wala amul. am na du dëgg. mais tey jii yaa ngi dégg. waaw tey Viviane fii mu yeg si filmer moo ko fi indi caméra yii di ñu wane nii moo ko wan nit ñi bañ gis la. Mm-hmm. lu waay doon caméra yii bokk nañ ci bu la ko yàlla defee ak yonent bi ak sa liggéey nday waay caméra yi. waaye lañ cay teg xam nga ne mbay gis nga rek li mu ruubee nday gay waaw fu ne nga ne fa waaw mbay moo te moo filmer. te du jël làmbi nag wala du ci sànni ay buy jël dañuy yokk yu sew waaw yu sew yooyu ba ca yokk nag xam naa ne moo lool looloo tax Viviane euh, xaw ko mer noonu jël téléphone bi wala dara. parce que gis nga ni mu koy ruubee ndey géey rek naan ko ay fu ne nga nekk fa mbay ci boppam moo nekk nit koo xam ne yàllaa ko bindee mu mën a tooñ tooñkat la. waa noo man bu doon man la damay woo kenn ma dee ko ne ko. récupéral ma téléphone téléphone mais boo ko waxee devant public. kooku tamit dafa xaw a dafay gis boppam dafa gis sax non communication bi wax ko ci kaw. Mm-hmm. loolu am na lu muy yàq ci mbay am na lu muy yàq ci moom moomu. dafa dafa ruslu ngi dégg mbay aussi seen mbay la mais mbay dama ne ko. mbay su doon man damay wax ak moom dama koy wax mu moytu parce que mbay tay jii ñi yor téléphone yëpp di liggéey lu si ëpp ku mer si yow lay ñëw ne la xasal ma diw ngay xas kii xas kee gars yi la xasee mer ñun ñii sax da ngay gis ku la am na keroog benn waykat bu fi jekki-jekki benn bis woo ma naa ma dama bëgg nga xasal ma diw ma ne ko xasuma ko kooku amul lu mu sol bu tëggee du fees moom daa mujj di ree yaa ngi dégg mm-hmm. waaw du ko def wax dëgg yàlla kooku lu ma def lu sama yoon ci moom. Mm. yaa ngi dégg boo amee daya waxal ma diw ma jox la xaalis boo yoree xaalis téye ko comprendre nga li ma la wax mais li may mën a wax ba wax daal mbay seen mbay la parce que mbay bi mu tàmbalee ba léegi mi kenn ku si nekk du keroog la mbay mës a filmer Viviane lu tax film yi njëkk yi bañoo ko nga bañ film boobu keroog gis nga o gis nga tey képp kuy dajale ay nit danga war di organiser ñi ngay dajale bala ngaa commencer. am na wala amut bu ci leneen xanaa am la bu njëkk ba ñu war a filmer dañ leen di dañ ñu war a filmer dañ leen di noter ba pare ñooñu kese ñooy filmer mënoo wax ba filmer dara te te te te kii ñu ko mais bu fekkente ne affaire bi réglé woo ko ku jot filmer ku jot may euh, naka sinap ku jot kii fi affaire bi ba pare am na ñoo xam ne bu ñu duggee fenn di sinap bu ñu leen mënee may ñuy sinap mbay kay filmer am na wala amut. d'accord mais nañ réglé waat li ñuy def. ndax parce que li mbay di def ak ñoom li ñuy def yëpp benn la. d'accord mais nañ ko régler daal. loolu moom dafa mel ne ku koy toroxal ku koy humilier ndax rafetul ndax Viviane tamit warul def loolu mbay ndax mbay tamit nit la rek comme influenceur yi fa ñëwoon rek di wax mooy li ma wax rek mbay moom moo dul yemale ay mbiram rek xam naa looloo tax. Viviane mbay bu waxoon lu leen arrangé duñ nangu portable am. waaw parce que li muy wax. loolu la rek nag la muy wax moo leen dul arrangé. waaw mais bu dee ci keneen la jëm nañ ko mën a muñ. parce que ñoom tamit chaque jour nit waxal leen foo xam ni daf leen di arrangé mu nooy neex ñuy ree. Ah, du dëgg peut-être mbay. la mu ah. doon ah, leen ko peut-être leen arrangé wul waa mbay moom ku ne xam ne ne lu mu gis moom moom lay wax. te ñoo ñooñu léeg-léeg nit benn influenceur tagg la xasal la diw nga kontaan ci moom may ko xaalis. waxal rek mi ngi noonu nag dafa rafetul nag ndax mbay publiquement ñëpp mu taxaw yor seen téléphone di liggéey muy nangu téléphone am public publiquement mel na ku koy toroxal wala dara loolu moom rafetul moom vraiment umiliation la d'accord jërëjëf merci beaucoup Ngoné merci beaucoup Jimbori xam naa li des ñu yëkkati ci bi bareetul dañuy wax rek ci kaaw Adja ak euh, discussion bi nga xam ne moom ak benn ndaw bu ñuy wax euh, Toufa Ndiaye euh, Adja Diallo et Toufa Ndiaye s'insultent sur les réseaux sociaux moo doon titre bi nga xam ne site internet yu bëri bind nañ ko tur wañu ca teg sax bëgguma ko jàllale ci antenne bi waaye daal moom mooy ñooñu noonu di jaay ñooñu loolu noonu rek ñu ngi ko doon xasante ñoom ñaar seen biir anta jigéen ku nekk naan loolu ngay jaay ki naan loolu ngay jaay ci diggante ki nga xam ni moom moo di Adja Diallo ak Toufa Ndiaye erreur bi nag moom mooy euh, bu ñu demee bay saagante ci réseaux sociaux yi audio yooyu waroon na bañ a yegg ci réseaux sociaux yi waaw est-ce que est-ce que ku mel ni Adja war na war na egg ci dimension boobu jubóor yi. waaw xam moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla suñu seetee ba seet teesante la dese. Mm-hmm. waaw. Hmm? teesante la dese. lu tax nu ko dese. non xam nga tey. Adja Diallo ma wax la benn affaire. Hmm. su fekkoon ne ah. dafa ubbi école miisam. Hmm. di forme ay miis ak yooyu dem bokk ci encadrement bi ut ay xale yu miis yu mu encadre est que gënul jekk yaa ngi dégg loolu muy def. lan la def moom. ne. su fekkoon ne dem na toog def affaire am yooyu toog ki est-ce ndaw si dinañ jote bay teesante. am na wala amul mhm. ñaata téesante la la fi am moom bëri na de léegi mu bëri de am na wala amul mhm. mais ma ne bu doon man la damay dem ubbi sama école yam caa te am ñoo xam ñi ma bokkalul yoon ma baleen ok loolu bu ko Adja Dia la defoon wax dëgg yàlla kii di teesante ak moom est dinañ jote di teesante. est dañoo singili Adja rek teg ko bët. non non xam nga tey parce que am oto bu bees. boo xam ne xaw ma lan 2024 la oto boo xam ne sax amagul ci réew mi moom mu am ko est-ce que du xale waaw ma ne xam nga tey ñoom ñoom seen affaire wóoratul parce que mun nañ fee nekk di créer bad buzz waaw man moom damaa sonn ci waaw waaw waaw ñoom moom mais dama lay wax benn affaire am nga ajaaja ajaajaalo moom ajaajaalo bu nekkul ci téesante du bokk ci kaay amul fu muy fu muy défilé ti ba jël fa pee ci miis mais animatrice la nga ni animatrice la li may waxatee ngi nii xam nga yéen da ngeen di jël ko xam ni miis la leen présenté mi ngi ngeen ne ko waa xaaral ngeen ne comme rafet na rek naa ko indi ci kanamu écran bi di jaawale yaa ngi dégg man mii de man boo ma naroon a dugal ci leneen lu dul sama lii léeg-léeg nit di ma si woo dama naan la noonoo lii lañ ma xamee yaa ngi dégg mais loolu laa lay wax nii tey jii ku miisu yaa ngi dégg nga xëy bëgg koo def kilo loolu moo indi problème yii yow animatrice la lan lay animé daf ko jàng loo ko xamee du miis miis lañ ko xamee ñun moom waroon naa dem former yeneen miis loolu laa lay wax nii nit ki fu muwul bu mu fa mbaa bu ñu ko bu mu ko moo fa. wala mu bañ a tontanteeg ñoom di saagante ñoom. wa déedéet mais xam nga tey moom moom turam moo gën a jóg turu ñooñu. waaw léegi léegi bu leen ko mayee moom bay tontonte. kon kay moo tax ñun bu ñuy wax ci moom la ñuy wax parce que kee xamuñu ko. xamuñu ko waaw. waxal rek moom Adja mu ngi may xel bi bës ah. moo ah, waru ko tonte kooku am na ko ba pare. xanaa ngoone da koy mujjee woo muy wax fee mu taxaw. ah ah man de damaa waar. baasam bii day wadd. waaw a daal léegi Adja Diallo moom. moom moom moom moom moom taxawaayam ci ci ci ci ci problème bii nii moom man taxawaay da ci war a am tekkaaral la wala ngoone yow mi jigéen. ah tekkaaral man bu doo man la am na yenn yoo xam ne. wala da ngay defante yow. non non jarul ay defante ndax bu munoo nekk ci réseaux sociaux bi chaque jour. ku la waxal nga génn di defante wala di tontonte man boo ma a maay Adja duma ci ton sax wala duma ci wax ndax démb gis naa euh, benn influenceur di wax ak ki nga xam ne ne moom mooy moom mooy xale bu jigéen bi ci ci ci téléphone ci ci TikTok bi di waxanteeg moom naan ko ndax dangay fen ak nii la demee ak yooyu comme li mu wax ne d'après Adja Diallo dafa commandé ay yéreem valeur valeur trois cent mille après jëlu ko wala dara man dama la yooyu yëpp jarul tontu comme li nga wax rek teraanga bu yokkoo rek noonu yokk Adja Diallo te ku ne ne ne chaque jour ay wax noonu da yëngal réew mi tam li nga ko wax noonu yor otom bu baax bu bees di ko dawal chaque jour ñu lay créer ay wax ay lépp nga fekk jox nga fekk ay wax bu ñaaw bu ne di jëgu yëgu jóge di tegu ci dara may bu doon may Adja du ma tontu loolu sax ndax nit ki moom li ñuy wax rek naan le chien aboie la caravane passe munoo képp ku wax ci yow rek nga génn naan dangay ngay tontonte wala dara na nekk ci li mu nekk liggéey liggéeyam toog jàpp ñaamburam te bañ a génn chaque jour naan da ngay tontonte surtout ñuy jël wax yu ñaaw ay leb na ma fayu ma ay wax yu ñaaw wax yu salte di ko teg sa der bi munoo nag boo féetee fi nga féete nga jiitu te ku jiitu nag di nga dégg sa taat bu rëy wala taat bu ndaw bi mhm. munoo nag képp ku taxaw ci réseaux sociaux wax ci yow ci xale yi jigéen ñi wax ci yow lu ñaaw wax ci yow lu bon ku ñuy kuy dem rek la ñuy kar nit ki nag boo leen rombee avancé leen devancé leen di dem foo jaar nag dañuy jël ay wax yu ñaaw yu salte di ko teg sa der Adja daal lu mu koy digal na am fulla am fayda am personnalité mu liggéey liggéeyam te gérer boppam te bañ fee nekk nag di tontonte ay réseaux waxu réseaux sociaux suñ la waxee tey nga génn tontu bu gannaaw subaa keneen ñëw difformer la diffamer la dëngal la nga dégg di weranteeka di tontonte am na yéen yoo xam ne doxul na nekk ci li mu nekk rek jàpp ñaamburam te xam ne ne waxu giddaaw moom fépp chaque jour da koy dégg te bañ a génn di tontante man de loolu laa koy conseillé. jërëjëf Ngoné jërëjëf Jimbori yi waxtu wa jeex na ñu tàggatoo ba ëllëg ak jàmm incha allah jeudi l' équipe de Top Cas revient ah, ah, di wax bu baax Jimbori nga baal ma rek bëgg naa nga sàddal ma ci kàddu tuuti parce que waa Allô Sénégal bi suñu ay nawle te dañu leen jàpp ñu ngi ñaan Mame Mbaye Niang mi nga xam ni ñun personnellement ñoo ñoo ñoo ñoo la tooñ ñu ngi lay baalu nga baal suñu collègues yi nga xam ni wax dëgg yàlla danoo danoo danoo juum rek te ay xale lañ c'est des mhm. jeunes ñoom ñëpp kenn amagu ci 30 ans ba ci PDG bi et liggéey boobu ñuy liggéey euh, mhm. monsieur le ministre maa ngi la koy wax nga xam ko liggéey boobu ñuy liggéey ñoom ci la ñuy yor seen ay wéjur ñoom ñoo la jé tooñ te ñoom ñu ngi lay jégalu waaye ñun tamit seen ay collègues ñu ko lay ñaan nga jéggal leen parce que même bu dee monsieur le ministre bu dee un mois nga leen téye billaay dafay porter préjudice ci seen liggéey maa ngi la koy ñaan euh, par ma voix. Mhm. Feeling Dakar yëpp ñu ngi lay ñaan monsieur le ministre Mame Mbaye Niang nga baal suñu collège yi nga xam ne moom moo di waa Allô Sénégal ñu libéré leen ay xale lañ ñu dem continuer seen liggéey de toute façon ñoom message bi jot nañu ko waxuma waxuma sax ñoom mais message bi ñun ñëpp ñu nekk ci presse en ligne bi jot nañu message bi moom mooy ñuy bàyyi xel bu baax li ñuy wax ak li ñuy traité. ak di mhm. xam bu baax a baax est-ce que euh, source yi ñuy jox c'est sûr wala c'est fiable. Euh, parce que il faut respecter éthique ak déontologie donte ñu bëri ci ñun ci presse bi jàng nañu ko wenn yenn saa yi erreur day am ci antenne euh, bañ na kawa sax kii euh, wax wax ju rëy ji indi problème bi yëpp kooku invité la woon hmm. xam nga kon natt buy ñëw rek ñëw na hmm, hmm. monsieur le ministre ñu ngi lay ñaan baalal xale yi ci la ñu yor dépense ci la ñu yor seen ndey ak seen papa locaux yi nga xam ne moom la ñu am Thiès ci liggéey bii nga xam ne li ñuy liggéey ci la ñu koy fayee di ci fay courant di ci fay ndox di ci dundal ay ay ay bakkan yu bëree bëri ñu ngi lay ñaan monsieur le ministre nga nga jéggal suñu collègue yooyu nga xam ne moom moo di waa Allô Sénégal Ngoné boo ci amee ay kàddu waaw comme ni nga ko waxee rek di jéggaluwaat bu baax parce que képp kuy wax ci micro rek yaakaar naa ne accident lamine war na la mën a mm, dal di ñaan mm. yàlla suñu borom rek yàlla nañ ci yàlla teggi teggil rek loolu comme que ay xale lañ te dañ doon wax rek képp kuy wax ci micro rek sa wax di fasaa tey mën ngaa mën ngaa bañ a juum mhm. mi ngi noon nag képp ku nekk ci communication rek tey ji nattu mën na laa dal mhm. ñu ngi ñooy ñaan rek monsieur le ministre nga jéggal leen rek te xam ne ay xale lañ ay ndaw lañu mën na maa dal dal keneen a keneen te mhm. yàlla bu mu am dañuy jéggalu rek ndax képp kuy wax muy jàll wala muy neex ñëpp rek yaakaar naa du sa coobare yàlla suñu borom la neex si wax ji neexee rek yàlla suñu borom la nag bu safaanoo tamit nga xam ne lu ci ñun la dañuy jéggalu rek képp kuy taxaw ci wax ci micro mën na laa dal ñu ngi jéggaluwaat bu baax ñu jéggal leen te yàlla tax te xam ne ay xale lañ dañ doon daan seen doole rek mm-hmm. ba lii fekk leen ci d'accord jimboori yi waaw waaw xam nga lan laa siy wax nii mm-hmm. xam nga bi nga nee monsieur le ministre nga jeexal jàng yi mm-hmm. xam nga kan lan mooy ministre ki nga xam ne dafa jiite ay nit bokk ci jiite réew mi nit ki nag yaa ngi dégg euh, bëggee doon kilifaam yaa ngi dégg boo mënul muñ ay ayibam mënoo doon sangam. Mm-hmm. te Mame da dañ dafa am ay ndombal tànk yuñ ko jox fii. Mm-hmm. li te tamit tey del seet ku mel ni Ousmane Sonko ku mel ni Macky Sall. Mm-hmm. ñoom ñëpp dañ leen wax nit da leen fii wax lu rëy. yaa ngi dégg. te terewul ab bu ñu toppee ñenn ñett am na ñoo xam ne duñ ko topp. du dëgg. su doon maay moom nag damay bàyyi lii mu sedd. yaa ngi dégg. Ah. parce que bërki dem bi mu toppee Ousmane Sonko ñëpp dañ ni waru ko topp.